ñun jigéen ñi ñun ñoo fi nekkoon ñu amoon benn euh, association boo xamante ne Mantes-la Jolie lay jógee ñu am foofu ay partenaires tubaab muy euh, suñu euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu jiita fii muy kii nu mu tudd Gaye ak kii nu mu tuddati Badou ak Doudou ñoom ñoo fi nekkoon ñoom ñoo ñu utaloon partenariat yooyu noonu yi nekk Mantes-la-Jolie ñoo ñoo ñu financé woon bu ñu defoon fii jardin bii nii. parce que jardin bi ñun biñ koy door a commencé buntu bi fii la yemoon après la suite mu dem ba waa assainissement bi bi ñuy liggéey ñoom ñoo ni woon ñu arrêté assainissement bi parce que assainissement bi day dugg ci biir tool bi parce que toog nañ quatre ans yoo xamante ni liggéey ñu ci biir jardin bi après ci la mairie ñëw mu gis ne ay liggéeykat nañ mu gis ne bu ñu bu ñu jàppalee dinañ continuer waat ci liggéey bi ci la mairie ñëw mu door ñoo yokkal côté bii nii après ñu defaral ñu grillage yi defaral ñu panneau yi gis nga indiwaatal ñu ndox mi ñu commencé liggéey bi. nawet bi léegi bu ñëwee rek attaque beeg yooyu moo ñu sonal te bu ndox bi baree day dugg ci tool bi waaw te fi mu ne comme li mu ci liñ ci daan am duñu ko ci mën a am waaw bu dee noor nag dinañ def salade def yëpp waaye heure bi moom kii rek la mën a def ay kànjeeg bisaab ak ak ay comme mbuum yeeg yooyu ak mboq li ci des yëpp du mën a kii nag même suñu kànje yi attaque bi da koy commencé laal liñ ci mën a am du bare daal. ñoo ngi ci gis suñu bopp nag alhamdulilahi rabbil alamin ñoo ngi ci gis suñu bopp bu baax ndax ku ci nekk am nga sa plan yaa ngi ciy jëriñu yaa ngi ciy jaay waaw am nañ naana am nañ kànje am nañ bisaab am nañ yëpp fii macha allah. dama fi béyoon batancé ba sama batancé rafet ba ma yaakaar si jaay attaque bi ñëw yàq ko yëpp heure bu mu defaree ba ba mu baax rek bu tawee yoon bi da koy yóbbu yëpp foog ma commencé waat dama koy reprendre à zéro kon xam nga loolu jafe la. attaque bi rek moo ñu sonal fi ne nii. waaw bu ndox bi bare waaw. ndax fi mu bi xam nga ndox bi fii lay jaar ñun yàgg nañ presque fi lañ juddoo waaye nag fi mu ne bi rek bu faro bi feesee rek moom suñu jafe-jafe ñëw waaye bu feesul moom macha allah ndax fi nawet bu nu dañuy ñëw nettoyer kii bi yëpp génne salte bi balaa nawet bee jot monsieur le maire dafa yónnee fii ñu ñëw nettoyer fii yëpp dindi yëpp salte bi te semaine bu ne dañu ñëw dindi nettoyer dindi salte bi yëpp yóbbu ko am na ay produits yoo xamante ne buñ ko utiliser attaques yi mën na bañ am mais bu dee ñun jigéen ñi amuñu doole beeg moyen boo xamante ne moom la ñu war a jëndee produit yooyu pour def ko xam nga day metti gis nga bi ma xëyee ba léegi maa ngi roose di roose bu tawee sax da ngay roose ndax naanaa bi bu tawoon léegi léegi te roose oo day wow kon roose bi moom si la dëkk. bu noor la dañuy roose trois fois si journée bi. da nga ñëw si suba nga roose une heure nga ñëw roose six nga ñëw roose heure bi nag moom man tey benn yoon laay roose ay temps bu amee jot ma def ñaar yoon bu dul loolu nawet bi moom sonn ñu si roose wante noor moom dañuy roose trois fois si journée bi bu dul loolu moom du duñu dem suuf bi dafa wow suuf bi sax du suuf bu baax noonu suuf bi sax du suuf bu baax ndax bu baaxoon attaque bi du fa bëri. amoon na ci euh, benn euh, waay boo xamante ne bi mi ngi tudd Mamadou Seye demoon nañ ci moom mu mu mu mu won mu won kii système arrosage yi nga xamante ne yooyu ñoo am ñu dem ñu xool système arrosage yi nga xamante ne yooyu ñoo nekk foofu gis nañ lance bi beneen bi moom damay fàtte turam gis war nañu ñaari système arrosé yoo xamante ne vraiment noppaleku na boo ñoom bu ñu sañoon ñu am système arrosé boobu que vraiment sonn nañu boo arrosé boo wàccee sa mbagg bi sa loxo yi sa yaram bi yëpp day metti tool bi ah amal nañu njëriñ ndax ñu ngi jaay naana ñu ngi jaay bisaab ñu ngi jaay kànje batanse lépp am na daal. da ngay jaay da ngay lekk loo xam ne tey da ko jënd waroon jënd tey boo ko amalee sa bopp doo ko jënd yaa ngi siy lekk yaa ngi siy njëriñu di di si jaay lu mu néew na loo si jaay dina fajal say soxla kon ñun amal nañu njëriñ bu baax sax waaw amal nañu njëriñ bu baax. jardin bi am na opportunité boo xamante ne bi fii loo fi def dina baax ñun jigéen ñi dañ ciy gis suñu bopp bu baax a baax a baax ndax loo fi def yaa ko moomal sa bopp yaa koy jaayal sa bopp yaa koy utiliser sa bopp te fii bañ nañ ko ba produit chimique dañ koy tere ci biir jardin bi fii produit chimique moom vraiment bëgguñu ko ci biir jardin bi bio lañ bëgg di dundee ci biir jardin bi parce que dañoo gis ne ñun suñ suñu bio bi buñ ko daggee buñ daggee fi suñu produit buñ ko yóbboo suñu kër mun nañ ko teg une semaine yoo xamante ne du changer couleur ni mu mel noonu lay mel par rapport ak ndugg yi nga xamante ne da nga koy dënd dem jënd marché soo ko indee waat na ko ci yàlla ne ndugg yooyu suñ ko indee tey buñ ko jëndee tey mi ngi frais buñ ko tegee balaa suba dinañ fekk yëpp dépp décomposé ba ndox mi day siif xam nga loolu neexut a lekk boo ko defee si sa tog bi bu bëree sax sa togg bi bu fanaane sax si ëllëgee dootoo ko mën a utiliser waat il faut nga dem tur kon xam nga loolu du loo xamante ne moom lañ nit ñi di wër donc vraiment bio bi nii intéressant na te xoolal fii lépp jàmm alhamdulilah wax dëgg fa yàlla vraiment li ñuy sàkk pour ñu defal ñu ko moo di ne suñu affaire euh, ndox mi nga xamante ne day taa si biir jardin bi nañ ñu ko dimbale ñu dimbale ñu ci ay financement yoo xamante ne ñun jigéen ñi mën nañ koo lebalante suñu biir fii ñu liggéey ci ñu koy fay en même temps ñu dimbale ci produit yoo xamante ne bu ñu ko defee si suuf si vraiment dinañu amal avantage ku ñu dimbale rek rek lañ soxla ci biir jardin bi yàlla xam na ko billaahi ku ñu dimbale rek lañ soxla waaw waaye fii moom liggéeykat yaa ngi fi fii bu dee beneen jardin la la ci nawet bi nii kenn du liggéey mais ñun dañuy dem bu taw bi bu tawee bu ndox mi tawee bu fendee ñu wàññeeku si waat si biir jardin bi ñëw arrosé dindi li nga xamante ne mooy ndox bu tilim bi taw bi indiwaat fii ñu continuer bu ñu kay ñu am financement ñu toppatoo suñu jardin bi ndax ñun Bambacounda bi rek la am te liggéey rek la ñu bëgg waaw ku ñu jàppale rek bëgg nañu liggéey rek la ñu bëgg ndax ñun bëgguñu caaxaan waa dañuy liggéey rek man fi mu nekk nii gi ma fi mu jógee léegi damay dem marché bu ma koy yóbbul samay njaboot damay dem garage di yaay kon kii xam ne day demaat ba garage yaay kooku amoon fu mu jàpp benn rek dina fa jëfandiku rek moo ma gënal jaabante bi kon liggéey rek la ñu bëgg ku ñu jàppale rek ñu liggéey. Mamakunda faro la boo xam ni juróom-ñaari kilomètre la jële ko ci euh, penku dem ci so donc euh, sur sept kilomètres d'est en ouest ba pare traversé. Tambacounda mu nekk euh, faro boo xam ne histoire la ndaxte dafa am jeexital bu mu am ci dundu askanu Tambacounda. jardin bi ñu koy def li taxoon ñu def ko mooy mbéyum noor bu nawet ñëwee c'est sûr que mbéyum noor mënatul nekk li ñu mën a gën a faratal mooy mbéyum euh, nawet maanaam béy ay mboq béy yeneen ñoo xam ni. Euh, mën nañ ko mën na euh, meññeef bi mën na baax ci nawet donc euh, mbënn bi di am wax dëgg yàlla nekk na loo xam ni dañ ko xalaat mais njëriñ bi mooy que déjà fu jardin bi nekk ay mbalit lañ fa daan tuur te mbalit bi moom moo daan indi mbënn bi parce que comme niñ ko waxee ndox du bàyyi yoonam place su jardin bi nii mbalit lañ fi daan tuur lu bëri donc ça veut dire que tey tey tey tey boo laajoon euh, ñu dëkk ci wet euh, Mamakunda bi danañ la ne carrément que euh, mbënn gëj na fi am parce que tout simplement jardin bi am na ci effet maintenant inondation boobu di am ci jardin bi diir lay doon mais ngënal lay doon parce que après suuf si dafay daar parce que nawet aussi ñett ñetti weer la ko bu jeexee li ci des yëpp jigéen ñi mun nañu exploiter espace bi gën a yokk mbéyum dër bi léegi inondation boobu xalaat lañ ci war a defaat pour xool ndox bi donte dina ñëw fees ci biir jardin bi nan la ñu fexe ba mun ko évacuer rapidement donc foog naa ne solution boobu aussi ci li bokk li ñu war a saytu la parce que adduna aussi xalaat la rek chaque fois ngay réajusté wu gën a defaruwaat autonomisation des femmes dafa war a ànd ak allègement des travaux parce que comme ni nga ko waxee système d' arrosage bi système bu archaïque la mais je crois que déjà am na benn dispositif buy permettre après bu ñu defee ay tuyaux def euh, système d'arrosage goutte à goutte je pense que dafay gën a yomb après. amoon nañu yaakaar bi président Abdoulaye Wade euh, doon wax le projet des vallées fossiles euh, yaakaaroon ne Mamakunda bi dana bokk ci ñi nga xam ne dañ leen di revitaliser tey Mamakunda bi mun na am ngëneel bu bëri bëri bëri bu jéggi dayoo ci waa Tambacounda mais dafay fekk. nguur gi accompagner véritablement population Tambacounda li ma gëm mooy mairie bi rek mënul régler problème mu Mamakunda Mamakunda pour ñu régler ko il faut que nguur gi def ko benn projet bu mag a mag comme genre revitalisation des valeurs fossiles ñu mun ko régler définitivement parce que sur sept kilomètres la sept kilomètres mu traversé dëkk tey mun nañ def comme par exemple boo demee en France la Seine boo demee Paris la Seine dafa traverser Paris mais c'est parce que nit ñi ndox la ndox boo xam ni nit ñi jóg nañ ci et je ma gëm ne Sénégal am na nu ñu doon euh, jël problème moom Macounda bi en charge mun na am genre seen comme Seine nu mu amee à Paris mu am bi benn fleuve wala benn marigo wala benn vallée buy traverser Tambacounda avec toutes les conditions